na ni na borom vraiment kontaan nañ ci moom ak délégation bi mu def ànd ak notre ami et ak ay mbokkam ay xaritam am di jàmm yëpp comme ni ko sëñ Mori Niang doon defee ma présider ko vraiment ñu ngi di ko sant di wax mention spéciale ak yéen waa Bantamba TV promotion bi ngeen ci def liggéey bi ngeen ci def ba àdduna di ñu woo fu nekk ñu ngi leen ci gërëm di leen sant vraiment on vous xam naa ne le travail va continuer davantage ñun ak yéen. incha allah jërë ngeen jëf merci beaucoup. kooku moom mooy Diaz ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax. ndeysaan mbokk yi Papa Ndiaye a ngi toog waaye Cheikh Ibrahima mi ngi toog ndeysaan Yves maa ngi lay nuyu. Baye Balla maa ngi lay jaare baax a baax di kontaan ci yow seen plateau bi macha allah Bantamba TV mi ngi yëngal àdduna yéen a ngi ciy liggéey liggéey bu rafet. képp ku bëgg làmb képp ku bëgg cosaan bëgg culture xam na ni télé bii di tele suñu papa Bécaye vraiment yaag Modou Mbaye ak sama waa ji tur bi laay fàtte Bamba Thiam ah macha allah liggéey liggéey bu rafet moo su ma duggee ci làmb ji damay sawar ñëw toog ak yéen macha allah maa ngi lay nuyu bu baax maa ngi dellu si ci yow léegi ndeysaan Papa Ndiaye tey da yaakaar naa ni tey bis la boo xamante ni bis bu mag la ci yow bis bu mag la ci yow aussi waaw xam naa ne bés bi bés bu rëy la ci man bés bu màgg la ci man bis bu ma neex la it li ko waral mooy dixième édition drapeau Papa Ndiaye ak Mouniang production yàlla def Serigne Modou mi nga xam ne moo ko daan def yàlla na ko yàlla xaare àjjana amiin tàbbal ko ci àjjana yi gën a kawe moo ñi ko fa fekk ak ñi mu fa fekk mu génn àdduna waa këram di ko yeggale loolu sant yàlla la ma woo ma ñëw nag samay xarit ñëw gunge ma ku mel ni Cheikh Ibra Niang mi nga xamante ni dañ daan fóotandoo di sol simb ndeysaan boo xoolee Yves Niang mii am na cicatrice bu nekk fii man boo xoolee am naa cicatrice bu nekk fii benn xeer moo ñu moo ñu xaañ ndeysaan gol tapé simb Papa muy lu yàgg muy sama xarit di sama doomu ndey a man ak Amar nga magóor mii ku ne xam ni ku baax la Baara Ndiaye ñëpp xam ko ci ci làmb ji bon su lii amee damay damay sant yàlla. damay sant yàlla ma ñaan la ko rek. arbitre bi sifflé na combat bi. Bamba Thiam arbitre bi sifflé na combat bi. ndeysaan yaakaar naa moo nekk noonu. ci digg combat spécial bi moom moo nekk noonu ci diggante. Fils de Mbaye ak ki nga xamante ni moom mooy Fils de Courant. waaw mais Fils de loolu moom doy na waat rek. waaw ndeysaan Fils mbay Mbaye Gueye moom moo nekkee à gauche fils de Mbaye moo nekkee à gauche waaw fils de courant moo nekk à droite. moo nekkee à droite dañuy xeex. waa ñaari xale yi. am Ndiaye joxol jóg laay laay la laa a de Mbaye Gueye. Eh. Eh. fils de courant ak fils de Mbaye Gueye. laay laa mais eh, fils de courant mi daanaan la de. mais spécial nii laay laay la laa. la xeex ba daanu ba rëpp. Ah. fils de courant. lan nga logal fils de Mbaye laay laay la waa ñoom ñaar nag waxante na lu ne ndeysaan waay yow waay. mais Bamba lii mooy combat lii mooy lii lii. mais nit ñi lii la bëgg. mais lii lii amateur yi lii la soxla mais lii la bëgg. sponsor yi lii la lii la soxla. mais buñ la joxee combat da wane sa bopp. mais xoolal ma kenn ku ci nekk fañ la eggoon nga génn ci. ay eh, fils de bett na ma de. mais fils de mbay gay laa bett na ma. fils de courant maa bett. ñaari boy yi li ñu waxoon. ma def nañ ko de tey. moo tax ñu ngi ca ruqu saako ba. ne woon nañ danañ dañoo doy waat. ndeysaan waa za combat yu mel nii daf lay reporté roo da koy bëgg ndeysaan mbokk yi arbitre bi mi ngi leen di woowaat ci digg géew bi. ndeysaan Fils de Mbaye Gueye ak Fils de Courant. waaw Fils de Coura am na benn avertissement. am na benn avertissement ndax dafa an yéen génn saako yi. moo tax nit ñi ñëpp kontaan nañu Baye Balla. mbokk yi ma fàttali leen tey bés bi drapeau Papa Ndiaye la. muy dixième dixième édition génn na ba léegi waaw mais ma léegi Kalba xoolal Kalba xoolal Kalba. ay laay la laalu xew jeex. a ah, arbitre bi neex na je nee na jeex na loola. kalba ko rey kalba. ñu déglu lan moo xew. waaye kalba ko rey. waay laa fils de Mbaye Gueye daan na ko. waay daan na ko. ay fils de courant booy. ah gàcce ngalaama. waay ndeysaan bëri na ba daanu. mais xoolal lii. laay la laa. ma supporter yi ñëpp jug nañu. waay de courant. waay ñëpp jug nañu. ay fils de Mbaye eh, de courant mi ah. rien à dire. mais mais mais bi combat bi ci année bi. turandoo Malaw. waaw doomu béykat yi si Malaw bu bu Fallaye Balde bi yàlla na Ama Balde. waaw turandoom la. ndeysaan turandoom la. mais lii. mooy béykat yi si ñor la. non combat bi dàq gum. ci journée bi combat bi ci la bokk. ñoom ñaar waxante na nu lu ne. moo tax defante na nu lu ne. ndeysaan keroog samedi la ci biir Bantamba TV. maa la wax lii. ndeysaan Yves. waa cey bii bés. ndeysaan bés bisu ay dëmbu. Papa Ndiaye bisam nii la may la a mel. Oh. lamb ji neex na mais combat bi neex na trop. mais combat bi dafa bay bal la vraiment vraiment lamb ji neex na. Papa Ndiaye nag xolam moo rafet doomu aadama bu ne sa xol mooy sa yoon boo jugee ci ngay jaar. laay dëgg kon moom bu moom bu xewlee bisam la mën a mel macha allah. waaw loo loo ko bëggee rek. tey la sa ngaan jaboo du léegi diigi joor na bay bala a ah, samba njaay njaay sàmb mbuuk mooy sa baay léegi diigi joor na mbokum day xaadim jaam samba yaa ne ngan ñaay doomu ndey moodu mbay léegi digi joor na papa jaay bu xewle ni lay mel sa xol dafa rafet léegi digi joor na ndeysaan mais Yves loolu mënul ñàkk mënul day xaadim Fall yow da ngaa baax yow suma frère nga mais li ma nag maa ngi ko may promoteur bu mag bi Daouda Samb suma xarit la mooy jaay terrain yi temps gis ma ci jaayam terrain bi Daouda Samb la grand promoteur moom laa may tey li may woy yëpp ci làmb mais Yves dafa jot sëkk nag ngay ñëw ci làmb di way nag c'est normal xam nga arène nationale buñ koy indee pikin ñun ñu jàngee way Pikine jàng fi simb jàng fi ngénte jàng fi tàndbéer jàng fi kasak lii ñu indil ko banlieue bi war nañ di gis waykatu banlieue bi man temps yi dañ may woo promoteurs yi vraiment amateurs yi Yves Niang ñëwal ci làmb ji nga way tey nag macha allah Papa Ndiaye xewle ma ne dinaa ñëw ñoom kanji dañ may woo kenn bàyyiwuma suba damay ñëwaat ndax magan daf may yëg di suba macha allah jërëjëf. kontaan nañu xaar Papa Ndiaye fële. mais xoolal dama lay décorer nag. dama lay décorer. sama xarit damaa gis xam nga dama lay décorer. damaa gis yow ni nga téye làmb ji Bantamba TV nga ciy liggéey liggéey bu rëy comme bis bi sama bisu xale. mais ci loolu yow bisu Papa Ndiaye maa la defal lii ci Papa Ndiaye na bu ndeysaan wax amul dara xew kontaan naa ci kon daan na yàlla wéral la kontaan naa ci yow tu es mon ami waaw tey de bëgg nga xanaa baay baa la dégg nga li Yves wax Yves ñaa dañoo yàgg bëggati na ndax man mën naa ni bu ma woyee Yves ñaa ngi dongoloo tax ñoo daan ànd di dem way simb Papa amul dëkk bu ñu àndul ni ma àndee ak sëñ Modou fu ne noonu laa àndee ak ñoom fu ne Yves bu defee musiba sax man maa ko ñemee woo ni ko li nga def rectifier ko li nga def bu ko defati baaxul du yoon mu déggal ma nag lépp lu ma ko wax dana xam la ma ko wax mu def ko. damay dëggal damay dëggal li nga wax ci gël tàppe Papa Ngom mais mais boo gisee ma koy dëggal man dama seetaan Papa Ngom rue 31 angle corniche. jamono jooju foofu la doon simbi benn femme bu naan day liisa la daan simbal ndeysaan day liisa. mi ngi dëkk rue 31 angle Corniche. loolu xanaa yàgg na waaw kon seen diggante dafa yàgg booba dama naan gis Ndongolo. ndeysaan gis Yves. ndeysaan Xaadim Diagne. ah Papa Ndiaye ay dëmbu lu yàgg lu ne dëgg la. ndeysaan waaw ah, lii rafet na trop Papa Ndiaye tey kontaan na ah, jërëjëf. waaw waaw ah, drapeau bi. drapeau bi yaakaar naa ñu ngi lay woo ci biir. ñu bàyyi la nga dem jëli ko waaw demal demal ñu présenté drapeau bi te ñëw. ndeysaan jërëjëf. ndeysaan mais ñaari xale yi bay bala li ñu bëri rëy na. waaw li ñu bëri rëy na Fils de Coura ak euh, Fils de Mbaye Gueye ñoom ñaar la nu bëri rëy na. Fils de ak Fils de Mbaye Gueye. ndeysaan jëriñ ñu ngi lay nuyu bu baax. waaw ñu ngi lay fay baax macha allah. asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu. waaleykum salaam. ginnaaw bi sant yàlla jul Seydina Mohamed sangu sang yi. waaw booy lii mooy waajur waaw booy lii lan la. non da ngeen di déggoon non bu leen lii xoolal lii non booy bu leen jaar ci kanamu caméra bi. yéen yéen a war a taxaw foofu ku fi dugg ngeen téye ko. waaw ñu ngi sant yàlla baax a baax. di leen nuyu baax di leen jox seen wàccuwaay. di wax ne tey dañoo ñëw ci bis bi rek. pour ànd ak sunu Papa Ndiaye Aida Mboup di nit koo xam te ni c'est un quelqu'un boo xam te ni am na fu mu toll si ñun. dañuy am combat mu ñëw ISAT des micro bi di woy après tey micro bi si man xam ma wax man conseil ma jàppale ma dem. donc kon tey bisam bii nii su ma bàyyi yëpp ñëw rek lu war la quoi parce que moom ji ma lu tax ma war a ñëwal. ndeysaan donc nag wax di koy ñaanal yàlla rek bis